bi xam nga booy bi waaw kii kan la. ba ba xam nga booy bi. kii kan la xamee nga may boole américain bi nga may boole. kii kan la xamee nga boole kii kan la. keneen bi. moom la woon dëgg yoon. ma ne. mais Fadam kii kan la ñun duñu mës a bàyyi ñun duñu mës a bàyyi nga xam kan la. moo fi jaaroon daaw de. Fadam. waaw waaw waaw Modou. yooyu depuis ba ñu daane ba léegi dañoo takk rajo yi dañ ko tekkee de yi xamee naa ko jaaroon daaw en plus en plus wala en plus lu ngeen def nii waaye lu ngeen def na ko bàyyi ñoo dugg pikin bi ñu jaxase bàyyi leen jaxase pikin yooyu ñan ñoo leen jaxase ñan ñoo leen jaxase waaw moom looy suñu saa dañuy ñëw di xool groupe bu nekk dañ ciy dugg di jaxase pikin waaye rek groupe bu ne ñu ngi ci live bu dugg bu ne ñu ngi ci dugg di jaxase pikin waaye <laughs> lu garaaw nag laa leen xool lu garaaw nag xool exclusivité bi mu lay jox ni Modou Baye Fall du xaw tuddi nga jox ma exclusivité bi <laughs> da ngay taxaw Modou Lo bu neexee yàlla non damaa ne Modou Lo bu neexee yàlla waaw damaa ne ci mbedd bi damaa ne ci mbedd bi te daa kooc Modou Lo bu neexee yàlla le premier waaw le premier lay perte couronne bi bu neexee yàlla <laughs> ko na tey nga dégg ko. Baye Fall li nga wax ni foo ko waaw ñu am. xam nga tey daan na ñaar te lu mu jaan moom pour moom àgg na àggagul de ba sëñ ci àggagul. te premier bu premier le premier le premier Modou Lo ñàkk bi laa la man la ko duuti sa baaraam duuti sa baaraam. mais la may di gis ne waa Pikine mënatuñ leen a digérer léegi ah. ndax Baye Fall le premier le bu Modou Lo day ñàkk day ñàkk roi bi. kii xamul bu muy taxaw ñii li ñu war a def mooy. Boy Niang moom Boy Niang moom war na leen ne damay daanu ba pare parce que mu. dégg nga ah, war na leen damay daanu ba pare Modou du ko daan seen sortie bi passé mu ngi seen càkkartoo bi. moom loolu lay xam na xam na nag moom loolu lay le premier loolu lay ñëwee mer googu du denc ci moom te bu naree dañ ah. fi Modou duudoon ba fi Modou duudoon baaraam ci kaw nit ñi di dégg bu koy duuraat si suuf la koy dégg duut nga xam ne boo ñaa kese moo koy dégg boo ñaa mooy daan boppam mhm. non dégguma li nga wax nii de dégguma li nga wax nii de ma ne moom Baye Fall bii dégg na li may wax non man kay dangaa dégg ma ci dara man ngaa ci xaw ma ci dara li Modou wax ci kaw ba boo ñaa énervé wu waaw gën a garaaw loolu ñu ngi ko denc te suuf lañ koy wax si suuf lañ ko koy wax baaraam bi suuf lañ ko du moom kese moo koy dégg làmb du mer kaf la ak reetaan. yow Modou Lo mënut a merloo mën na mer mënut a merloo Boy Niang yéen xam nga li ngeen xamul ah. maa ngi Sénégal Sénégal dafa ñeeñi dafa ñeeñi Sénégal lu ñu xamul Boy Niang wax noonu la mel. Boy Niang buy wax da la yaakaar dafa mer. Fadam li nga xam nga ñun lafañ du ñu daan lafañ.

combat faram bu mu wax loolu mu bëgg doo waaye damay weer dama koy weer de. yow wuy ma lu garaan nag laa lay wax yow Amérique dafa métti de xanaa Amérique daa métti yow. wuy ma bu mu wax loolu mu bëgg doo wax. na wuy ma waxal wala dafa kañ buy seetaan na ma booy ñaaw bàyyi mer. mbër du mer yow xam nga booy ñaa de wóor na yàlla xam nga booy ñaa. def na ko fii sos du ma ko daan ko mu ñëw ci plateau di mer di jël ay yéen di duuraat. na bàyyi ko sportif loolu mu ngi loolu mu ngi suñu ginnaaw loolu lépp mais dama la bëgg a wax maanaam merkat la merkat bi muy bu mu doon laa la bëgg a wax laa a bëgg a confirmer mais nit ku dul mer amul booy Modou Lo mer Modou Lo rek keroog mer ba booy ñaar tontu mer. waaw oui ma oui ma combat moom jàpp daan la amul sax lu ñuy expliqué jàpp daan la. man déggoo ma la man déggoo lu lu lu gara laa la nee naa la. te seen problème yooyu ngeen waa yéen waa Pikine. amuñu amuñu de da ngeen jaxase da ngeen ñuy jaxase. seen problème yu jaxase yéen war a wax. seen histoire i bëri na diggante leen yu ñu neen wax na man leen rek laa bëgg Fadam. Fadam ci bal bi bu kenn woo. Fadam. waaw Baye Fall Pikine dafa mel ni parcelle temps yi. dañ leen a <laughs> ah, ñu ngi ñu la déggoo ma la bañu bañu daanee dañoo takk rajo yi. te dañuy takk noonu. ñun ñoo parcelle Pikine parcelle moo woon Pikine fu ñu leen dajee duma leen. non fan la fan la koy mënee. parcelle dajee Pikine da koy duma daan ko loolu yàgg na du bi passé rek de boobu moo ci mujj. mais jeex na loolu jeex na bi loolu jeex na. kañ lay jeex le premier saawe. yaa na wuy ma waaw wuy ma da nga gore na xam nga la xam nga bu moo li ma lay wax xaw la de xaw la na lu wuy ma am na lu baay faal déglu ma te tey xam nga le premier man maa la woo man man maa la man maa la man maa woo Fadam Fadam laaj ko man dama sportif ba ñu ba mu jeexee dama ko woo ko na ko lool la wuy ma man su ma le premier bu bu le premier jàlle bu le premier jàlle yow na nga gore dugg si félicité ma yow su may su may wax may déglu parce que dafa am lu bëri ma la man du ma wax du ma waxantu demal ne parcelle Pikine parcelle moo man Pikine jeex na wala léegoo wax ji jeex na ñun lafañ duñu daan lafañ ñu daan c'est benn tànk bi baaxul mbaa baax na ñun nag cause duñu daan cause contre duñu daan ñun lafañ ñu daan seen benn tànk bi baaxul non non non non <laughs> non bàyyi leen baat boobu bàyyi leen baat boobu mais li sa problème li sa problème mooy sa Baye Fall Pikine da ngaa dugg ne waa parcelle ñu ngi jaxase waa Pikine waa ñun ñu jaxase eh. xamante kenn jaxasul leen kenn jaxasul leen kenn jaxasul leen seen defet yi ah, bëri rek seen defet yi bëri kenn jaxasul leen da ngeen bëri ay defet. wala laay laay boo fi gis laay boo fi gis. seen defet yi bëri kenn jaxasul leen ñu jaxase ñu ngi jaxase mbër bi xam. Ah. kenn jaxasul leen visage masqué ñu ngi visage masqué. defet yi en plus bëri kese leen jaxase kenn jaxasul leen baax na. non voilà xam nga lu ma bëgg le yàlla. du yoon nag dañ ci wax wax ju bëri la. Baye wax sax moo wax ju bëri la jël de. nga daa kocc maa ngi nii ci la mi. suñu toll affaire la zéro kenn du guy. kenn jaxasuwul leen Baye Fall wax sax mënu ko. lan mooy problème bi lan mooy seen problème ak Pikine bu bu ma duggee fi wax la benn baat dañ ñoo jàngal ñi raw leen li ñi jàngal ñi gën leen koo man muy pomi ñoo leen ko dàq fuuf. maanaam suuru combat ba sam-sam kese la ñu naan lekk tàndar ba ñëw jàpp daan ñibbi amul leneen. mais boo loolu la ñu dangereux de boo ñaar fu dangereux de ma ne ñun ñoo ay si ku dangereux la déggee ku gën a dangereux fuuf da koo xalaat la déggee du pasar pasare làmbam ñun ñaari yoon lañ bëree ak moom ñaar suur boobu lu mu moo soxla de na leer moom moo soxla moom moo soxla ñun amatuñ lenn lu ñu soxla ci lamb lepp lu ñu soxloon ci lamb am nañ ko moom moo soxla na ñew nak bëré na ñew nak bëré da ngay ragal né boña day ñew taxaw non boña ku mosa ku boña sa song ci lamb man de ah. suma bëtt bi maye gun ko te seetaan naa ko ba pat sétan ko arrêt boña champion la nak waxuma ni du champion de waxuma ni du champion ku mu song ci ku mu somb ku mu boña mosa somb song ci lamb dal ah gàcc xam na ne daal xam naa ne diggante Pikine ak Parcelles daal man attanatuma ko nag. ma ne mënoo koo attan ñun dañ leen man dañ leen ëpp doole dañ leen gën a féetee xale li ñuy jàngal dañ leen ko dàq heure bu ma dajee ñoom duma leen fu ma fekk Pikine pa fu ma fekk Pikine duma ko ak fu ma ko mënta fekk. grand yi xanaa xale yi sax ñoo ma xaw a jaaxal mais grand yi grand mais li nga téye dama lay duma nii doo ci rus nii xam ne xam ne suur ba day lëgg booy bi yóbbu ko mu ñibbi de moo la gën a xam ne suur ba xam nga keroog bi nga ko bi nga ko jëlee fii xaw ma ne cof Pikine léegi dañuy cof rek kenn du ci wax dara koo ci dékk micro muy cof xam nañ li war a xew xam nañ ne seen booy bi amul lu mën a daan Modou Xereñ Lo eh, koo ci dékk micro day cof kenn du wax waaw parcelle waaw parcelle rek taa yi rek li ñaan ku ku ku ku naan la kaa ñu xeex ba pare taxaw ci jalu garawaay Esa ci jalo xer ngeen taxaw di wote kay ñu xex ñoo ay ñu def daanu. ndoxu sam-sam ¿Eh? rek lañ ndaxu ndoxu sam-sam lañuy naan. Ah. lañu naan ñu lek lekk ba japp ko daan ko ñu biir porte. dafa kañ rek combat bi amul coow ak ñu xam na lu muy ree dafa kañ xam na lu muy ree day daanu. wallahi ñom dañuy daanu. mais dafa kañ. dégg li wax barki dem fi la boy ñaa mu lu mu ko ko wax yow xam nga ne boy ñaa yow xam nga ne dafa kañ nam doon communiquer bo booy ñaa Balla Gaye ni mu communiquer force bi mu doon waxee xadar bi mu doon waxee waxewul ko booy ñaa nam doon booy ñaa ci boppam nam ko man non Fodam ñun maanaam ku war a daanu boo ko xoolee rek xam ko bu waxee rek nga xam ne kii dafa war daanu ñoom da laaj di daanu rek lañ ci am amuñ ci leneen daanu rek lañ ci am yow salaam yow salaam rajo rëy ngay wax salaam dong rëy ngay non non Fadam moo a génne woon Fadam moo ma génne woon. <laughs> non non non non maa ngi léegi maa Fadam Fadam Fadam dara ma Fadam faal oh, ba ci kanam mayaat ma baax faal beneen yoon. waaw waaw yow. rafet na rafet na. mais Baye Fall la tàggatoo Baye la waaw loolu nag dafa am lu ñu war a wax ci Pikine dañoo am foo xam ne dañoo bokk lu ñu bokk ñun ñii ñun ñooy Pikine ñun supporters ñun ñooy Pikine mm, mm. képp ku wax ne Pikine nga rek da ngaa wax loo rek mais ñun ñooy Pikine mm, tey ji bu ñu kenn jaxase bu ñu kenn boole tey ji lu fi xew lu am. tey ji bu dara amee ñun suñu biir lañu ñu war a toog ñu waxtaan ko nekkul loo xam ne dañoo war a bu ñëw dëkk ñu suñu ay rajo rek ñu taxaw wax leen. alaaj alaaji Bécaye Mbaye nee na Pikine bu ñu dajaloo nekk benn amul kenn ku leen mën. dëgg la dëgg la Pikine daagu daan Pikine daagu daan ñun ñu ñoo fa juddoo ñun ñii. ñun ñoo mais dégg nga li dégg nga li waa Parcelles wax nee na ñiw moo leen tee daanu. non waa Parcelles dañu dañ xam dañ cee xamal ne naan boo ci boo ci dalee dal nga rek. waaw waxat bi moom waxat bi bu ci dalee dal na ci rek. waaye. te Modou Lo te Modou moom moo daal xaar xaar ma yéeg ndax fii affaire day raisonné wu quoi gis nga. <laughs> Fadam gis nga làmb ji. waaw. bi nga xam ne dina uteeg làmb ji.